mu ñun seqal lislaam ci seen diggante ak sëriñ bi mu ngi xam ne am nañ ci lu wóor ne ñeen ko seqal yépp ci réew mi jox nañ sëriñ bi àqam nag boo ko boo ko joxee àqam mel ne di deselu doon xam nañ ne ñun bokk réew mi yëpp ñu doon bokk di jullit yëpp xam nañ ne xam gis nañ ñu yége yëgee sëriñ bi gis nañ itam ci digg ma boromam jox giñ ko jox àqam loolu yoolu xam ne am na ci lu wóor kon nag loolu ñoo ngi leen sant leen ci gërëm bu baax a baax di ci soñ suñu bopp fas gën a ànd ak gën a sax ci liggéeyal islaam liggéeyal islaam nag mooy liggéeyal jullit yi rek loolu alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi fàggul loolu lépp te lii dëgg-dëggeew turam muy al abdul xadim abdullahi wa xadimu rasuli moom jaamu boroom rekk lay doon boo see digg mag yonent bi nag ak ndigal lim ci am surga bi bi rekk lay doon ndax dàkk ci diggante boobu di jaamu boroomam di liggéeyal bi loolu alhamdulilahi rabbil alamin wan nañu yoon ay jaamu yàlla la ñu te jaamu yàlla rek la ñu woon war nu itam ci nañ ko war a liggéeyee ndax mooy rek ni mu liggéeyee yonent bi la ci suñu kéem kàttan xam ne duñ ko séen sax waaye nu def ci ci suñu kéem kàttan ci liggéeyal kooku moom liggéeyal ko ci lislaam liggéeyal ko ci lislaam nag mooy liggéeyal ko ci jullit bi kon nun suñu digganteeg suñu bokki jullit yi nga xam ne donc jullit yépp lañ ko seqal waaye rawatina ci rek yi nga xam ne ñoom lañ seqal réew mi bokk yàlla boole nu bokk boole nu lislaam boole nu réew mi comme am na lu wóor ne xam nañ te jox nañ ko ak xam seen kéem kàttan kon loolu ñoom lañ leen di fayee nii ñu delluwaat suñu wartif seen sax dàkk ci jaamu yàlla ni ko suñu borom nammee ni nu ko sëriñ bi bëggale sax dàkk itam ci liggéeyal sëriñ bi ci lislaam mooy liggéeyal ko ci jullit yi loolu loolu loolu moom la wuyoo suñ bokki jullit yi rawat na suñ ba kilifa yi islaam yi yéen ko seq yéen seq liggéey bi liñ leen di wuyoo moo di fas sax dàkk ci jaamu yàlla ni ko suñu borom nam ci nun ni ko sëriñ bi bëgg ci nun sax dàkk itam ci liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéeyal ko ci islaam moo di liggéeyal ko ci jullit ñi kon nañu xam ne ñun jox nañ leen ñaari loxo fas yéeneen liggéeyal sëriñ bi ci ñoom muy liggéeyal ko lislaam mooy njukkal li nag li ñu war a delloo itam ñi nga xam ne seq seq nañ seq seq seq seq nañ loolu lislaam bi seq nañ liggéey nu seq liggéey bi loolu la seen jukk la suñu jukk ak ñoom moo de rek ñu gis ñu ñu xool suñu taxawaay xool suñu diggante ak ñoom ñu gis fa du ñu fa gis lu dul jaamu yàlla ni ko suñ ni ko ni ko suñu borom bi nammee ci ñun ni ko Sëriñ Tuubaa bëgg ci ñun sax yi itam nag ci liggéey Sëriñ Tuubaa ni mu doon liggéeyal yonent bi nu dig nu nu sax dàgg ci dig liggéeyal ko ci wàll yépp rawatina ci suñu digganteeg jullit yi rawatina suñu digganteeg ñi nga xam ne ñooy suñu ñoom la bokkal barab bi muy réew mi bokk lislaam bi bokk ak bokk kon eh, na ñëpp xam ne nun suñu taxawaay mooy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci lislaam ci jullit yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom laa jottali nañu góorgóorlu bu baax ci li ñu séq def suñu suñu yitte jëpp ci lislaam dëggu ci noonu bu lislaam déggoo ci ñun ñu ànd te déggoo jàmm ji ñu bëgg ci àdduna bi wax ma laa ci réew mi foofu la loolu mooy junjub jàmm ji kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ñu kilifa lislaam yi bu mu góorgóorloo islam gën a déggu ci ñun lu gën a ànd gën nag bu ko defee rek lii nga xam ne moo xam ci àdduna bépp muy ñëpp maas nañ bëgg jàmm te xamuñu fuñ ko fuñ ko fuñ ko jëlee noonu eh, loolu bu ñu ko defee jàmm am nañu ko bëggee loolu nag bu ñu ko waxee ñëpp war ko gëm ndax bi ku xool sëriñ bi bi muy jóg noonu bu am bi mu dajee di gaale moom ay at na mu gën a tiise na mu gën a tare lépp mu daar daar daar daar daar loo ko mu lépp jëmmal teg teg teg teg boromam ci ko ci ci ci kanamam lépp mu def ko te yàlla tax liggéey liggéeyam bu rëy liggéey ak ba ba liggéey bi ak si fii tey xaddamul toxu dee turuut kon bu nu wootee jàmm ñu war ko gëm xaddamul li tax ñu wala fi xaw ma sax ñu wax ko noonu waaye man mel ne xat lu yomb a la jëf wala damm kon liggéey sëriñ bi liggéeyam bu réy bii mu liggéey fa mu fekkoon yow lislaam moo njëg ba fii ñu toll xaddamul dee tuut ah, loolu bu wootee jàmm dañ ko gëm kon nag eh, eh, noo ngi tàllal sunu bokki jullit yépp rawatina sunu bokki jullit yi nga xam ne moom lañ moom moom la ñoom lañ dëkkal ñuy bokk di sunu bokki jullit di sunu bokki dëkkandoo ñoo ngi leen tàllal loxo baax a baax a baax jox nañu loxo waaye ñaari loxo nañ leen di jox noonu kon nañu góorgóorlu bu baax na diine dëggu ci ñun na lislaam dëggu ci ñun te nu góorgóorlu jéem a ànd te yàlla tax ko defee lu nu nam lu nu bëgg lu nu bëgg rek mu am lu nu bëgg rek mu am na mu gën a te dara tey jàmb rek ay am jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñépp jigéen ñi di bëggee ñépp ci diine lislaam kon kàddu yaa ngoog jërëjëf moo ngi sant bu baax a baax a baax sant bu baax a baax a baax a baax jërul dolli dara am na lu bari moo waral waaye loolu doy na moo ngi sant bu baax a baax a baax